de association des produits maraîchers bu Kayar waaw euh, tey liñ ñu fi dajale nag mooy li nga xam ni moo arrivé suñu mbokk tey muy dañu xëy suba teel rek fekk ay jali pomme de ñu taal ko te euh, jali pomme de terre yoo xam ne gas nañ ko pare amuñ fu ñu ko jaaye amul fu ñu ko denc moo mu yàqu tey boo ko dee calculer évaluer ko ci ay trois millions de perte ci ay jeunes yoo xam ni jël nañ seen alal ak seen doole ak seen temps pour liggéeyal seen réew te loolu tey. li ñu liggéey tey mënuñu ko jariñoo ngir lan lu ko waral mooy état boo xam ne bii politique agricole Sénégal ndax lii ñu gis tey lenn rek lay signifier mooy échec gu Sénégal ci wàllu mbéy parce que bu fekkoon tamit échec amut ku bay di nga jaay wala bëgg di jaay nga mën a denc mais tey bay mënoo jaay mënoo denc lu ko waral mooy état wu Sénégal bi nga xam ne moo war na protéger ay doomam dafa jël ay doomam sànni jël doomi jàmbur boot mooy Sylla India mi nga xam ne tey moo lëmbe marché bi yàq ko fatt ko ba benn baykat li nga produit mën koo jaay bëgg démb rek le douze la ñu dem ARM ñu waxoon ñu ni seen India dana arrêté arrêté na le huit te loolu amul bi ñu xoolee lën daan demee indoon na waat na marché bi te mardi bi ñu passé mercredi bi ñu passé ministre la euh, euh, ci président de la république fa lañ dajee président ni wax ay ay institutions yi ferme wax ni nañ protéger zone ñaay ba nga xam ni li ñu bay dañ ko mën a jaay kon dafa mel ni état wu Sénégal li nga xam ni moom la nar ministre du commerce ak directeur horticulture dañoo lajj waxoon naa ko fa ni passé mooy lajjuk politique Sénégal ci wàllu mbéy moo war a lii bay mënoo jaay amoo foo denc te loolu du rek depuis ñetti at mi ngi am kon mën nañoo wax ne état wu Sénégal jël na ay doomam sànni jël doomi jàmbur boot mooy Sel India ba tax béykat yi mënuñoo jaay. boo ko doon calculer ci xaalis parce que man que c'est 6 millions de pertes kon mën nañoo wax ne loolu ci jeune boo xam ne da nga jël sa alal ak sa temps investir ko pour mën a développer mbay mi kon kooku waroon nañ ko protéger ba nga xam ne dina mën a jaay parce que bu fekkoon ne bi mbayee jaay na da koy jaay mu normal du ko ci fekk mais bay na ko munu koo jaay munu koo denc ba ab sàmba ba jógee ci àll ba ñëw lax yàq ko loolu métti na waaw loolu mën a nekk parce que lii jëfu sàmba boy la kon sàmba boy ko mën a tuddee mais sàmba boy boobu ci li tax mu am mooy ki doon liggéey dafa liggéey ba pare état bi ko waroon na sàmm sàmm ko ba lim mën a defar mu jaay ko mais loolu amul bu fekkoon ne bi mu ko bayee bi mu ñoree jaay na ko wala mu am fu mu ko lii du am kon état bi moo sàggane baykat yi moo sàggane zone de Niayes te lu wax toujours man ni zone de Niayes jamono ji ñu toll war na nañoo xoolaat seen bopp xoolaat seen doxin parce que lii depuis ñetti at mi ngi am da ngay bay ba noppi bëgg a jaay doo jaay. te investissement yi tey yi ñu def ak li ñu jël ci emploi kooku état bi dafa waroon a taxaw protéger leen jàppale leen loolu amul loolu amul kon dama jàpp ni béykat yi zone Niayes war nañoo amat benn taxawaay ndax lii ab xeex la boo xam ne bii dañ cee war a taxaw xeex ko mu jeex benn yoon parce que indien bi moo ñu fatt moo ñu sonal te waa ARM gi nga xam ni ñoo war a réguler marché bi ñoo yàq marché bi bërgë de moo njaay la waxoon ne indien bi day arrêté directeur général bu ARM toog ni indien bi arrêté avant ñuy am 12 heures de temps marché bi inondé ak i camion muy wax joo xam ne ji amul fenn fu mu tegu ci kilifa gu toll ni moom te bi mu koy wax lu ko jiitu mercredi ba conseil ministre am na président nañ nañ protéger waa journée ñaay kon dafa mel ni li Macky Sall di wax ñi ni ci suuf ñu ngi koy daj kon bu fekkee état Macky Sall état bi mi ngi teg ay politique agricole yu baax ñi nga xam ne ñoo ne ci biir bi moo xam directeur autocrise moo xam moo ministre du commerce wala ministre agriculture ngay dajji loola am réew nag bu fekkee ni ñii dañuy tabax ñu jiite dañoo war a defar ñuy dajji yàqu-yàqu ma ngi am ci réew mi euh, je m'appelle Mbaye Ndoye je suis le secrétaire général de la l'APMK l'association des producteurs maraîchers de Kayar nous sommes ici présents au niveau du champ de Mamadouka euh, vous voyez que aujourd'hui à notre grande surprise on nous a le matin pour nous dire qu'il y a des dégâts au niveau de son champ vous voyez que devant nous qu'il y a un tas de pommes de terre d'une valeur estimative sur la quantité à peu près de si on évalue approximativement le prix, ça devait normalement aller autour de deux millions de francs fa qui va pourrir à l'air. Pourquoi Pour manque de chambre froide. Alors qu'aujourd'hui, le propriétaire même du terrain, c'était un émigré qui était parti faire l'immigration au niveau de l'Europe en 2006. Il est retourné en 2013 pour cultiver la terre, pour pouvoir euh, subvenir à ses besoins. Mais à, euh, vous voyez qu'à cet instant, comme on a euh, toujours eu à le dire, que nous avons toujours des problèmes de chambre froide pour le stockage. Donc, et ça aussi, nous allons indexer du droit l'État du Sénégal. Parce que à maintes reprises, nous avons demandé à ce qu'il qu'on mette en place des chambres froides ou bien des, des, des lieux de stockage pour pouvoir euh, stocker le produit. Mais toujours ces problèmes perdurent. Aujourd'hui, c'est un grand, une grande amertume pour tout producteur de voir un tas de pommes de terre comme ça, avec tous les efforts que nous avons eu à faire pourrir et mettre dans le, euh, euh, euh le tout dans l'air. Donc c'est une déception. Bon, pour le moment, nous avons dépêché la gendarmerie. Ils, ont, euh, ils étaient venus ici faire le constat. Nous avons appelé aussi un huissier pour faire le constat. Mais nous, nous espérons peut-être c'est du feu. Peut-être une tierce personne peut venir et mettre du feu parce que nous, notre lieu de stockage, on, a, on est obligé de prendre de la paille et le mettre au niveau des tas de pommes de terre. Alors que ça, il n'y a pas de sécurité. Alors, certains, certains cette insécurité-là qui, qui, qui, qui, nous gagne au niveau des producteurs. Nous n'avons pas de là où mettre nos produits. Donc c'est la raison pour laquelle nous avions dit à l'État de stocker au moins 5 eh, ignas pour que les producteurs, à la fin de la récolte, qu'ils puissent écouler leurs produit Voilà les résultats. Ce que nous demandions, les résultats sont là. Aujourd'hui, ça, c'est une aperture. pour tout producteur. Oui, si on évalue les pertes, bon, pour, pour, évaluer les pertes, on peut dire que normalement, il va perdre à hauteur de 2 millions, voire 3 millions de francs CFA. C'est déplorant. Quel appel mais l'appel que nous faisons, c'est le même appel que nous faisons à tout instant, que l'État puisse venir Euh, essayer de réguler le marché, qu'ils puissent euh, dégager au moins les Indiens du marché et que les producteurs puissent écouler leurs produits au moment de la dès l'instant qu'ils vont, euh, qu'ils vont faire leur récolte, qu'ils puissent écouler ces produits. C'est ce que nous demandons à l'État.